noo taxawul. lu tax kon ngeen xëy bind ci journal sunu làmb bind lu non ban poisson d'avril yéen ko bind lu. poisson d'avril la su ma la ko waxee rek ko ah suñ neexee duñu def poisson d'avril. mais Sa Thiès jox ngeen ko avance Père Gaston tamit confirmé na ko. Sa Thiès jox nañ ko avance loolu tey Sa jox nañ ko avance. comme rek combat bi mën naa sax taxaw suba. pour moog rek rek. waaw ah, suba sax ma naa taxaw. rëg-rëg su ñëwoon nii nii nii nii nii ne ma ok ok sept li nga ma mu jël avance am dem préparé wu ci. ñaata nga ko proposé. non loolu duñ ko wax. 35 40. ñaata ngay fayeeku. man kay liggéey gratos laay def xam nga man dama bëgg liggéey. njàmbur njàmbur tam gratuitement lay bëre. gratuitement lay bëre. bu bu bu Reug Reug su fekkee déggoo wala nan ngeen def ak Sa da ngeen koy jox Bombardier wala. mën na jël Bombardier mën na jël Tapha mën na jël euh, mbër yee ngi fi ñàkkul adversaire Sa Thiès Sa Thiès ñàkkul adversaire su bii sotti wala ñu utal ko beneen. desul ci Sa daal ci la des. waaw. pour muy. Euh, journée bi weesu di dimanche le 27 bi ndax Makan maanaam jàpp na ko journée bu réussir. ah ak Gaston Production. waay waay waay waay waay liñ ci defoon ci xaalis génne nañ ko ci. waaw kon nag alhamdulilah. looloo jar a organisation tamit euh, am ngeen organisation bi bon waaw vraiment est-ce que làmb mës na réussir nii sax laay wax parce que vraiment c'était tellement réussi. Euh, amoon na organisation amoon na spectacle amoon na lépp lu ñuy xaar ca làmb donc euh, nit ñi woote nañ kontaan nañ félicitation yeeg lépp ngay dégg waaw appel yi bëri woon nañ donc ma ci euh, gërëm ñëpp amateurs yi nga xam ni que ñoom tamit ñooy tax ñuy làmb te ñun dañuy jóg pour bëggee bëggeel leen. macha allah loolu am na solo am na lu nga xamante ne yaakaar naa ni amateurs yi ak waa axlu làmb yëpp dañ leen ko nangul muy côté sécurité. Gaston Production duñu foofu sécurité dañoo xam ci risque yi ci nekk wala dañuy bañ ko leen yàq seen bon xam nga nag euh, Gaston Production du société bu ndaw société bu mag la boo xamante ni am na 30 ans d'expérience 30 ans d'expérience yi soo ci xoolee euh, dañ ci jàngat lu bari moo tax euh, sécurité ci làmb foog mu am si système d'organisation bi la ñu gis le 7 août lan lañ mën a xaaraat ci lu bees tax ak expérience bi nga xamante ni def ngeen ko ci làmb comme ni nga ko waxee sànq 30 ans d'expérience. bon le 7 août euh, yaa ngi naan même tëggkat yi mais soo xoolee làmb bi passé euh, du même tëggkat yi certes waa kër famille Seck ñëwoon nañ mais Paalo bi nekk Fatick moom tam ñëwoon na. Mbaye ñëwoon na waykat wolof tam ñoom tànn euh, kii euh, ni ku ci ñoom ñëwoon nañ donc euh, bàq bi ñu gëjoon gis tam ci làmb indiwaatoon nañ ko ndaw rabit mu jëgaloon gis indiwaatoon nañ ko simb gaynde yi indiwaatoon nañ leen donc lépp daal luy defar làmb wala luy neexal bés suñ ko mënee nee rek dañ ko ciy def. kontaan naa ci moom. jaajëf Lamine. Gaston bu ndaw. <laughs> sama copain.